danañuy waaxu ak suñu oto suñuy musique ba sa kër yow wax ne tel jour la nga yow nga dajale say mbokk ñu passé musique fii si biir jaar marché yeeg yëpp ba egg sa kër dikki primé la sagal la war na say mbokk li nga la waa département bi ñoom euh, bàcc ga kii bàcc ga nekk ñun ñëw dañu doon ànd ak ñoom te tey yàlla namb na leen ci ñoom yàlla jëlee na leen fi tey ñu wóor seen njaboot mais ñooñu idéologie yi fàtte wuñ leen dañuy fàtte seen njaboot boobu politique nag moo doy lu bëri day jafe tant que nekk au pouvoir lu bëri day jafe loolu rek moo tax ñu primer. ñi nga xam ne noonu ji di. maa ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñu teew kenn ndax kenn fi bëgg-bëgg di leen nuyu ci turu Adja Gane Fall dafa xaw a am tuuti malade moo tax ñëwul xelam a ngi ci yéen xolam a ngi di leen bu baax bàyyiwuma kenn ñi toog fi ñoom ñaan ko ma jatara ñoom Pape Diop bàyyiwuma kenn Sayar Mangane bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum te bëgg maa lim dañoo namoon daje bi sax na bu doon suñu sago bu ñu fa jógee ñaari fan ñetti dañoo daje am na solo dañoo jëm jigéen ñi na ngeen jàpp leen ñëpp di resté jàppale ko taxaw dès maintenant commencé dañoo bëgg ñu def def mayu ba ñu génn ci lii ba ñu yem ci waawam da Touba jigéen ñi ñu maasale ko sa set bu ñu yàlla mayee

ak euh, le vice-président docteur Abdoulaye Ndoye ñu ëmbaaleel ñu ñëpp ñi nekk ci présidium bi di nuyu également comme ni ko président Idrissa Seck Tamo waxee borom musóor yi ñoo fi majoritaire ñi leen di nuyu ñi ngi rafetlu nag lii nga xam ne initiative bi dafa jóge ci Sankhare ñu koy defal mention spéciale moom ak jeunes yi nga xam ne moom la ko bokkal def parce que lii lu am solo la day créer li ñuy wax retrouvaille d'abord ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu ànd nag ñoom mbir mi te yéen ñëpp xam ngeen ne mbir mi ci mettit rek la jaar ba fi ñu toll mus naa ko wax président Idrissa ma ne ko soo soxlaa as gor nga taxaw ñu andil la say militant ak say responsable yëpp féetal a gannaaw bul geestu da ngay tàllal sa loxo rek koo jàpp mbubbam rek xëccal andi as gor la ñi toog fii ñëpp ñi ñu sargal ak ñi ñu sargalul ak ñi ñuy waaje sargal ñëpp ay gor lañ wante yàlla ñàkkul fayda ku mu narul faydu la liggéey loo li ngeen daj ni mu méttee fi ngeen jaar yàlla du leen seetaan incha allahu rabbi di ngeen añ yàlla dogal ko ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu jóge fi ñu ñaanal leen yàlla yërëm leen te jéggal leen ndax ñoom defuñu lu tax yàlla jële leen fi ñun ñi fi des defuñu nu yàlla lu tax mu dee ñu fi mais suñu heure moo jotagul kon ñi ngi ñaanal ñooñ fi jógee yàlla yërëm leen te jéggal leen di ñaax nag waa département yi tous les responsables hommes femmes jeunes adultes di wax ni li ñu jëw yëfu président Idrissa Seck la du yëfu Mor Sène du yëfu Yankhoba Diattara du yëfu Pape Diop du yëfu Lamine Diallo du yëfu Aliou du yëfu Mantoulaye sama jarbaat bi may xool kon yëfu président Idrissa la ñun ñëpp nañu takk suñu ndigg pour que lii mu nekk une réussite éclatante parce jot na nag jot na ku doon def benn defal junni ku doon def junni defal million pour que lii mën a réussir ah am ànd nag li nga xam ne mooy tax lu ñu soxla am ko moo ñu yéeneente jàmm di waxante dëgg di dénkante mu ànd nekk benn bloc ñu ngi koy ñaan waa yépp nag tous les responsables la góor jigéen mag ak ndaw bu ko defee. ni Thiès meloon euh, ci résultat ya mu melaat ko ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp yal na yàlla defal ñëpp jàmm merci beaucoup